ginnaaw ni yow ñu sant leen gërëm leen bu baax a baax ànd beeg Aladji Malick TV ah, kontaan nañ ci bu baax a baax ànd boobee yàlla na jëm kanam xibaar yi fi bàcceeku ci ginnaaw ah, takkusaan gi nga xam ne daanaka dañuy fas yéene ah, di leen jox information yoo xam ne fu ngeen wàññikoo ñu fëgg leen benn bu ko defee daanaka ngeen mën a nekk ci jàmm seen xel dal ci li nga xam ne mooy footballkat yi nga xam ni ñoo soqi ko ci réewum Sénégal ne ci adduna bi nag di fi tasaaroo ak ñeneen ñoo xam ne sax daanaka ña ngay capp bal bi capp yoo xam ne yu am solo la bu ko defee bi gën a rafet ci coupe du monde bi goney FIFA yi euh, joxe nañ ko bit boobee Richard Liton ma newoon fële wala ma nekk ca Everton moom moo ko dugal bit boo xam ne daanaka euh, replis la boo xam ni euh, ñaari tànk yi ñoo jóg ñaari loxo yi wàcc mu yëkkati bopp ba ba tey dara laal suuf mu dugal bit boobee looloo ko may bit bi gën a xarañ a ci adduna bi wala ngal képp ci 2022 bi Asensio Asensio ci 2023 bi boo amul chance dana def renfort ca Paris Saint-Germain yi gone Paris yi ñu ngi koy gunaan naat waaye man ca conseil ba ma koy jox foofee xaat na lool bu baax a baax Matuidi nga xam ne 2018 ah, bokkoon na ci équipe bi nga xam ni ñoo belli coupe du monde bi nga xam ne France ah, jël na ko ñaareel bi yoon ah, Matuidi mi ngi noonu ñu bàyyi leen quelques photos continuer information yi Idrissa Gana Gueye moom ngeen gis ko noonu mu def ak tàggatoo moom it ak gone yi euh, Everton yi tey ji tàggatu googee def na ko mu am solo bu baax a baax moom Idrissa Gana Gueye ginnaaw bi mu duggee ci terrain bi rajax ko cabar cabar ji euh, ci biir terrain bi ñu doon defee entraînement benn pare lan dugg nag salle de musculation yi foofee nag daanaka doole lan fay wut ak tànk yoo xam ni yu dëgër këcc la tarinki loolee nag mën nga ko doon wute ci li nga xam ni euh, moo nekk biir salle ya nga moom la ñuy defee sport lépp nag génnul bi nga xam ni ñax mu tooy ma nga xam ni moo nekk ca fa doon doxal ñoom mu am solo bu baax a baax Idrissa Gana Gueye ngeen gisoo noonu image yi noonu mu mel ni daanaka bu ngeen xoolee fàtte na li nga xam ne moo nekk coupe du monde bi fi mu toll ni daanaka xelam a nga ci la leen ñu ñaanal ko jàmm ak tawféex jërë ngeen jëf